lool ba de période pour mu njaajaan ni ñëwal na guur na guur na guur na e bu la naa fi yéendu de mais xam naa seen <laughs> da nga war a yendu nag ah, benn bés sax nag wax dëgg yàlla da nga maa war a toogal nag nga yendu ni ngay tànnee ceeb moom ah. ma man ne <laughs> moom maalo feeteen raf maalo Caroline misère <laughs> nang Caroline Caroline rek nii mooy ceeb bu dijj bi Caroline yéen yéen da ngeen xam ay Caroline ay ngurbaan rek ngeen di lekk moo tax ma gën la baax yaram ah! ma ñàkk suma ndey su la duulee nga wañ xam ne bis bi seen yoon nekku ci asalaamaaleykum maaleykum e eh, gacce yo nanto mbaɗɗa ngay see kontaan naa de. waay maa la gën a kontaan. naka tey danga ma seet. waaw tey dama laa seet ci woon. haa góoram haa góoram ngay see. buur. ba doon tamper. na nga def ah na nga def. yéen a wala may ba. waaw loolu na ko. naka woykat booy naan ñee ñoo wala may ba ñee ñoo la. Ah, ñàkk woon yéen lañ kii daa mun waaw sama gars yow gën naa laa gis yow ah maa ngi nii rek xam nga rek magasin bi rek laay dox ah xale bu ma fa teg de wóolu ma ko séeréer la comme buur ah, ñëw naa fa ñetti yoon saa ñëw laaj ma dangaa dangaa génn dëggantaan léegi laa ko laaj mu ne ma yaa ngi kër mais ñëwal toog nag ah, non eh, bàyyi ma toog yow baatool bi depuis sa amul solo amul solo toogal toogal toogal toogal waaye toogal rek toogal teraanga rek toogal toogal toogal jërëjëf amul benn solo amul benn solo waaye baax na baax na ah, sama waaj rek laa soxla woon déet waay mbaa jàmm Fuuta laa jógee waaw sa nijaay moo ma jox lekk dama naa la ko jox sam nijaay def barki démboo njaay rek mu ngi may woo naan ma jur gi naan da dañoo amul lu ñu lekk noor gi dafa métti foofu wax na dëgg nee naa ko magasin bi doogul hmm. waaw jërëjëf waay mais kaay toog nag maa kër ga waaw jërëjëf waay sëy mënoon nga xaar añ bi lépp waaw jërëjëf waay sëy jërëjëf waay sëy jërëjëf waay jërëjëf xaaral ma xool waay ma ne la ko war di jàppale nag bu ko yónnee xaalis nag par xam nga lu ma metti lii dama koy xool ak gis nga séeréer kaj gi lii rek moo tax mu yàmm lu ma jàngul rek moom mu metti am te lii waay nga jàng ku laa lay wax nii. dama laaj la du ma ko téye. jëlal man ñàkk suma ndey du ma ko téye. ni jaay ah, buur nag xam nga dangaa ñàkk fayda trop te lii nag. rus ah, gàmmu te lii. bu doon yow de du ma ko téye. rus dama la ci moo tax jàng baax. xam naa affaire njur gi rek la ma sam nijaay dafa bugg kaalis. doo jàngoon lii lépp doo xool lu koy. dafa bugg kaalis laa lay wax nii. wax na dëgg tuuti laa lay wax nii. xëy na rek àlla fayal. kii de lim fi bind dama yaakaar ne kii est-ce que nekkul di tux. <laughs> sa nijaay day tux. yow da ngaa yabaati de. yow sa nijaay mu ngi xam ne sa jabar a ngi ëmb ba diis. mu yëgatee di ab jabar ne da lay mayaat ñaareel lii da la bind ci ci ci ci ci ci kii bi. moo ne guus ah. sam nijaay attan na naa damay takk jabar waaw sa nijaay de loolu la ci leetar gi. ma ne loolu duma ko nangu tey duma ko ah, nangu ëllëg ma ne loolu ma karul sax moom ko gën a tey man lii damay karul laa lay wax nii man loolu duma ko nangu. waaye yow teg maa dégg yow sa nijaay bu demee ba takkal la jabar loo jaay xaroo. da war a nangu. ma ne Seyna man loolu duma ko def xam nga état bi nga toll loolu mënoon a fekk sax nga daan fii. wóor gis nga lii yëpp yaa ma ko teg nag. diit bi yob yamako ma newon na duma dug ci si ñaar yeen nga ne dug ci si ñaar gil waam dem bu nga deg nga deg luma So, ma lo rek di nga deg ki nanguna jabar ju bax nga am ki jabar ju yalla gërëm la man ne suma day dula def dara man ne man mako xam man mi nek ak mom maa xam ha ki atana ma tal tay dula tal min kay min feeram bondi tan han min mi wana dang may sal man feeram booni mooy mooy tey tey damay dee. lu yàlla rek la mënoo rey de. léegi xam lan la pexe am na léegi dama lay jox junni nga luweel ma extincteur. guddi suñu duggee sax su ma rek nga xam ne doo dina ma taal nga nga fay taal. Eh, ngay do feeram booni xam ngay do extincteur kenn du ko luyee. doo dee extincteur loolu pour pour woto yi la ak tàkk looy doy SNT waaw léegi amul problème dañuy dugg suñu baaxu maam comme ndataar fii dañuy luwee téeméer bari nga ndox nga takk sama buntu ne nga duy ko ba mu fees sama fay lakk ci ni téeméer bi sama yàlla mi to ngomi ɗo feeram koko booni hannde yo daga ragal temdere nani kon baax ma ko dégg mexey gara ndiiki ndiiki ndiiki xam atin waaw bul yàgg nag waay waay feeram booni feeram booni hannde min ngaydo hannde mi booraama seynab xëy na pare goo ba léegi. pareeguma. kii nag ku mu gis tey nag lii bu baaxul de kanam lu mu saxaar jël almet jël burgel loolu de baaxul buur de dinaa ko woo léegi mu gën a préparé lii moom tey nag dugg naa problème dëgg-dëgg na. Eh, waaw ah, buur ngalam mi moom nelaw na de.

yaa for almet for birget ay waay añ bi yëpp këpp na ko ay lii li mu doon dama koy fàcc laa la wax lii dama koy fàcc dan dan dan dan dafa for birget for almet yow for dugal cun bu tàng jël yeey yeey dangota taa man ñàkk suma man nijaay bu ma la taalee man fu ma lay jëleeti nijaay du nee nañu jëkkër mooy dugal jabar aljana xanaa man war naa sàkku aljana nag ci yow ah man ñaan naa yàlla nga dugal ma aljana jigéenu senegal wujje du dara bokk wërsëg rek la kon loolu la kon lii la